xibaar yi marax yi mbokk yi bisimila gannaaw bi ñu leen nuyoo fas yéene dikk ak yéen ci li ci gën a fës bokk na ci Serigne Mbacké Ndiaye meme kaddu président bi fi nekkoon jano ak taskatu xibaar yi di wéyal nag moom euh, courant bi mu sos ci biir parti démocratique euh, Sénégal euh, sàkku na ci PDS dellu nekk benn sàkku na ci premier ministre bi fi nekkoon mu tekki ndombol tànkam sàkku na ci waa Y'en ñu yëkkati seen kàddu ci dundugu seer gi dinañ ci ànd ak Chérif Dia ma ñu fa demaloon leneen ci wàllu xibaar itam bokk na ci forces armées sénégalaises niki tey ji amal nañu seen bis bi ñuy amal at mu jot euh, ci teewaayu président de la république lañ ko amal euh, sargal nañu ko moom it sargal na leen sàkku na ci ñoom euh, ñu gën a xam li askan wi xaar ci ñoom kaaraangeeg réew mi. ci wàllu passation de service joxalante lenge amaat na ni kii tey jii ci diggante Ibrahima Sall amee woon éducation ak kii di Serigne Mbaye Thiam moom mi ko wutu foofu ci éducation joxalante nañ lenge Euh, ci jàmm xibaar yi mbokk yi bu ñu ci toftalee tàggat yaram euh, dinañu dikk ti jeexatalu xibaar yi am na ñu gan Momar Ndao lay wuyoo jiite Ascoten seen moom la ñuy daloo ci seen euh, jeexitalu xibaar yi marax yi ak télévision Futur Média nes tout askan wi ñu dikk ak yéen ci yaatalu xibaar yi. mbokk yi ni ñu ko waxee ci bopp xibaar yi ñu dikk ak yéen ci yaatal gi euh, tàmbale ko ak Serigne Mbacké Ndiaye mi doon seq janoo tey ak taskatu xibaar yi ci janoom boobu nag euh, xam leen ni daal mi ngi sàkku ci waa parti démocratique Sénégal ñëpp ñu dellu nekk benn woo na Idrissa Seck euh, woo itam kii nga xam ni moom mooy Cheikh Tidiane Gadio waaye ne woowul Macky Sall wax na itam lu jëm ci waa Y'en a ak société civile war nañu dégg seen kàddu ndax dund gi seer na réew mi nekk na ci ay tolof tolof nañ ko doon defee ñi ngi koy xaar ci ñoom janoo bi euh, Abdoul mbay premier ministre seq ak euh, taskatu xibaar yi moom nag gis na ni euh, waxu fa dara loo xam ni lu ajum ngooñ la moom premier ministre bi ba tax na mi ngi sàkku ci moom mu tekki ndombool tànkam gannaaw loxoom dafa dugg ci alal ju tukkee ca Càdd jaaroon ci loxoy président Hissène Habré mi fi nekkoon jombul xibaar boobu dinañ ci dikkaat ak Chérif ca ci xibaaru 20 yi moom moo ñu teewaloon Euh, ca conférence de presse ba Serigne Mbacke Ndiaye doon seq ak euh, journaliste yi euh, ñu dikk wax ci beneen jano bu amoon démb nag doxoon ci diggante kilifa gi ngànk lépp lu aju ci saytu alalu réew mi rawatina ñi nga xam ne dañ ci am lu ne gàññi te jaarul ci yoon doon na ci seq moom taskatu ak taskatu xibaar yi ci loolee nag am na ci ñaar ñoo xam ni tudd na ni dinañ leen déglu bokk na ci Tahirou Ndiaye ak Doudou jaañ ñooñu nag taxul ñu xam leen mu wuute lool ak ñeneen ñoo xam ni ay politique lañu xam nañu leen mu bokkoon ca Karim Meïssa Wade Madické Niang euh, Samuel Ahmed euh, saar ak Oumar Sarr euh, ñii di Tahirou Ndiaye ak Doudou jaañ Daniel Diouf mooy laaj ndax seen démb du leen dàpp ba ñu jatang leen ñu teew teewlu maanaam taxaw seetlu bi ci Daniel def. Tahirou Ndiaye moo yoroon administration mu kadastre ñu dénkoon ko ko ca atum 2000 gannaaw ba mu fa wuutu woon ab wuutu nëgëndiku kii ñu naan Ousmane Gueye. moom Tahirou Ndiaye jiite service cadastre ba ca weeru mars 2012 ca la dem retraite Amadou Samba Tall ko. liggéeyu directeur général mu cadastre ëmb na lépp lu jëm ci yore suufu dëkku taax yi ak village yi waaye it saytu ak contrôler impôt financier bi directeur général mu cadastre ab décret bu conseil des ministres moo koy tabb service cadastre di benn ci direction yi ëpp solo ci nguur gi Tahirou Ndiaye ci atum 2011 tuumaloon nan ko fi ñeel na mu doon gérer suufu réew mi ci rapport bu CENTIF ci kaw rapport boobu enquêteur yu section de recherche bu gendarmerie déglu woon nañ ko ci luubal gu ko doon tudd. keneen ku procureur boole ci lim bi di duudu Diagne jiite woon urbanisme mu bokkoon ci liggéeyam nag di joxe autorisation urbanisme permis construire ci kaw loolu mu naroon di liggéey ak service cadastre mi Tahirou Ndiaye jiite woon ca nguurum Abdoulaye Wade suuf si nu doon sax-saaxee fasoon na lool ay terrain yu bëri ñu déclassé leen woon niki CICES aéroport Léopold Sédar Senghor wala sax terrain bu l'hôpital Dantec ca ndajeem ak taskatu xibaar yi procureur boole na leen ci lim bi ndogal dañu jël ngir déglu leen ca gendarmerie mën nañoo xalaat ne rek dafa am rapport ak seen liggéey ba ñuy directeur mu cadastre ak urbanisme addiya moom delloo nañu ca booba conférence de presse Aliou ndaw di kilifa gi ngànk ëtt bi war a atte ñi alal ji bari lool ci seen i loxo te lu ca bari sellul ah, moom sax dafa wax lu jëm ci koppar yooyu ne daal millions yi daanaka yitteelu leen ñoom milliards yi la ñuy xool nan la ñuy def ba jot ci Aliou ndaw dañu koy déglu ak addiya tala ah, ci conférence de presse bi mu amal démb. Lorsque j'ai lu la bi ma jàngee si yéenekaay yi yëf yi daf ma xaw a dafay ree ñun daal fu ñu toll nii lu ñuy rëbb mooy euh, milliards yi ñuy jëlee réew mi di ko yóbbu bitim réew ci samay xam-xam daal xaw ma ndax Cour des comptes la wala beneen kuréel moo génnee rapport bi ni mel wante daal bu ñu xaymaawee ci ay téeméeri millions lay toll waaye fi ñu toll nii léegi ñun lu ñu gën a soxal rek mooy ñiy sàcc ay milliards te luñ ci mën a teg tamit mooy que ni kii di Aminata ñaan amul benn këyit walla benn information buy firndeel ni ni que moom am na lu mu jël waaye waaye waaye bu ñu fu ñu toll nii ñun bu ñuy wut ay milliards bu ñuy wër ay milliards te ñu ñuy wax waxu téeméeri millions foofu nag euh, am na yenn laaj yoo xamante ne war nañ ko mën a laaj. vraiment il euh, vraiment des questions à se poser mu nekk aliwul ndaw ne daal fu ñuy euh, euh, feese kenn du fa jooyub góom noonu la ko waxee euh, ci lu jëm ci million yi ñuy wax te milliards yi ne fi te làqu Euh, ñu war ko liggéenti mu ñëw ci biir réew mi lu jëm ci armée sénégalaise ni ki tey yemoo ko euh, juróom-ñeenti fan ci weeru novembre euh, ci la ñu amal ñoom itam juróom-ñeenteelu édition bi juróom-ñeenteelu édition boobu ca camp jal Diop lañ ko amale ci teewaayu njiitu réew mi Macky Sall lañ ko doon defee ñett ñi ñu tànn nag ne ñoom la ñu darajaale bis bi daanaka fàttaliku nañu leen thème bi nekk devoir de mémoire muy cër bi pàttaliku am te ñu fàttaliku itam ay jàmbaar yu ñu ràññee woon loolu tey jii la amoon moo sargal nañ fa itam euh, ki fi nekkoon euh, chef d'état-major euh, général muy Abdoulaye Fall Macky Sall kati fay kàddu ñaax leen ci ñu gën a fàttaliku bu baax lan mooy seen cër ñoom kaaraangeeg réew mi Daouda Sow ak Mardien ñoo ñu fa defaloon reportage kon mu mel ni jàppandeegul reportage boobu 20h incha allah jombul dina fekk mu jàppandi ñu mën leen ko dégtal. Euh, ci xibaar yi Mamadou Ibra Kane fas yéene dikk ak yéen ñu dem ca passation de service bi doxoon tey euh, ci diggante Ibrahima Sall mi amewoon éducation euh, nationale ak Serigne mbay Thiam mi ko fa wuutu seen joxalante blange boobu amal nañu ko juróom-ñaari weer la fa Ibrahima Sall jot am bilang ba tënk na ko ñu ànd ci ak Fatima Ba ak Pape Fall. kon nag mu nekk élément ba tey boo xam ni jàppandiwul moom itam euh, jombul di ngeen ci mën a dikk ak euh, vingt heures ci kàllaamay tubaab euh, kuréel gi ëmb ñi am ay loraange ñoom. Euh, ci fitna gi fi amoon ci wàccaayu élection yi ñu dëgmal ñi nga xam ni nag ñoom euh, dañ ci amee woon ay gaañu gaañu ñi ngi sàkku yoon euh, indi ci ay leeral ba lépp loo xam ni war na ci ci ndàmpaay ñu defal leen ko Cheikh Abdou Khadre Mbacké Seck ak Alioune Diagne ñoo teewoon ci seen ndaje mi ñu doon seq ak journaliste yi. kuréel gi boot victime fitna yi amoon ci élection yi ñu ngi aartu nguur gi ngir mu mën a jël ay matuwaay yu mat sëkk ñaawlu nañu tamit yéex gi ñu nemmeeku ci seen i dossier ma dossier yi nga xam ne déposé nañ ko boobu ba léegi depuis ci élection présidentielle yi ba léegi pour que dossier yooyu ñu mën a euh, dem ba àgg parce que lii nga xam ne moom la ñu seetlu mooy dossier yi ba léegi dafa yéex ñun dossier yooyu duñu ko bàyyi donc dañu bëgg pour état sénégalais def euh, kenn tulaay kattanam pour que dossier yi mën a avancer. kuréel gi xamle na ne jot nañu wut ay pexe ngir dàmp victime yi. ñëpp euh, fekkee nañu seede nañu que euh, ci c'est-à-dire ba way takk der yi di agir euh, état wu Sénégal moo doon agir même bu dee tey état changé na état Sénégal moom moo war a jox ndàmpaay victime yooyu benn ñaar moom mooy initier nañ ay procédures au niveau des tribunaux euh, ñun gëm nañu que procédures yi yàgg-yàgg dina aboutir wante temps wu justice dafa yéex. ngir loolu mën a nekk ay digle joxle nañu ko ngir victime yi delluwaat ci ni ñu dëkkee woon. xaalis la ñuy indi jox leen ndàmpaay. xam nga xaalis boobu mënul la remplacer ñi nga xam ne ñoo fi jógee dootuñu ñëw ba mukk ñi nga xam ne ñoo gaañoo lu ñu leen mën a jox ci xaalis mënul remplacer tànk wala loxo bi nga xam ne mënatoo ko it wante moom mooy mën des choses bi nga xam ne moom la ñu mën a xaar ci ñoom benn ñaar moom mooy ñooñu la plupart du temps dañuy am li nga xam ne dañu naan traumatisme c'est-à-dire da lay jaxase donc ñooñu dañu bëgg ay spécialistes yi nga xam ne dañ leen war mën a suivre donc individuellement mais ak seen famille. période yi bari nemmeeku nañu ko am na ñenn ñu ci ñàkk seeni bakkan mel ni Mamadou Diop am na itam ñeneen ñu ñu jàpp ci kaso bi ba léegi Euh, ca passation de service ba la ñuy dem jàppandi na mu doxoon ci diggante Ibrahima Sall ak euh, Serigne mbay Thiam Ibrahima Sall nag diirub juróom-ñaari weer euh, def na ko ci département bu éducation ca ministère ba tënk na bilan bi nga xam ni jot na ko fa def dañu ci dikk ànd ci ak compte rendu bi ci Fatima Ba ak Pape def. jafe-jafe yi ci njàng mekk njàngale mi fii ci Sénégal bari nañ lool sëriñ mbay càmm di jëwriñ bu bees bi ñu dénk woowee wàll jàpp ne sas bu rëy la ba tax na rek dina ci def kéem kàttanam at mi ñu génn at mu jafeñ la ci njàng mi def nañu examen yi def nañu brevet def nañu entrée en sixième ak certificat def nañu baccalauréat waaye bu ñu fàtte ne at yi di ñëw war nañoo am ay élèves yuy defaat baccalauréat yuy def brevet élèves yooyu su fekkee ne at yi ko jiitu li ñu waroon a jàng yëpp jànguñu ko dana am ay jafe-jafe sama xarit yi sama mbokk yi dañ may oo naan ma jox nañ la ministère bu jafeñ ma ciy gërëm loolu président la république parce que dama jàpp ne lu jafeñ ko óolu moom nga koy jox moom Serigne Mbaye Thiam jàpp ni jafe-jafe yi am ci njàng mekk njàngale mi mën nañ ko saafara ci kaw rek ñëpp ñuy yëngatu ci secteur boobu jàpp ci. ñun ñëpp li ñu tax a jóg mooy suñu njariñu réew muy président muy gouvernement bi muy ñi nga xam ne ñooy jàngale ci classe yi te ñooñu Sénégal amul seen fay mais nag réew moo xam ne mii. amoo doole lii sa yéene ci say doom yépp doo ko mën a def ci kaw loolu lay ñaan ñi nga xam ne ñépp ñoo ŋànk éducation nationale ñu def benn pause ne serait-ce ñu def ko at mi ci passation de service boobu nag Ibrahima Sall mi nga xamante ni moo yoroon secteur boobu def na bilan ci juróom-ñaari weer yi mu nekk ci bopp ministère boobu moom nag jàpp na ni bilan bu baax la ndax kat nee na année bi nga xamante ne woon ñu bëri dañuy jàppoon ne day blanche waaye itam fexe nañu ba lu ëpp juróomi téeméeri école génn ci ndox mi ba ndongo yi mën faa dellu niki Aboulo ak Ali Koto Ndiaye Ibrahima Sall itam président Macky Sall daal dina ko utal beneen poste ndax léegi mooy njiit bu bees bu SICAP mu nekkoon euh, passation de service ba Ibrahima Sall jóge ci éducation nationale nekk directeur général euh, bu SICAP ñu wax ci confédération nationale des travailleurs Euh, du Sénégal CNTS ñoo fas yéene amal euh, seen congrès yemoo ak fukkeel bi yoon ñu amal congrès ñu jàpp ko nag euh, fukki fan ak juróom-ñaar jëm fukki fan ak juróom-ñett ci weeru novembre gi ñu nekk seen congrès boobu nag fas yéene ñu xolaat bu baax syndicat bi lépp lu ciy rëq-rëq ak yan taxawaay lañ ko war a amal ngir ëllëg mu mën a nekk syndicat bu mag lamin Fall mooy secretaire général bu union régionale bi dañ koy déglu ak Louise Sarr ak Alioune Diagne. dañuy organiser congrès confédéral 17 18 novembre 2012 fii ci Ndakaaru ci grand théâtre bii ci suñu gannaaw. Euh, dañ ci war a waxtaan waxtaane ci ay ay ay dison ay soxla yoo xam ne mooy soxlay liggéeykat yi. ci ëpp solo daal mooy pouvoir d'achat bi bu booloo amee ba pare pouvoir d'achat bi ci la bokk mais pouvoir d'achat bi aussi jàpp nañ ne bu ñu wàññee impôts yi lii gouvernement bi nag promettre na ko. wax nañu même vingt huit milliards dañu ko ci wàññi ci impôt sur à partir du premier janvier 2013 en tout cas jàpp nañ ne aussi dana am ndax président bi ci boppam wax na ko kon loolu ci la bokk ak leneen ak leneen waaye itam mbiru xëy liggéey parce que jàpp nañ ne aussi travailleurs yi euh, nit ñi sénégalais yi d'une façon générale amuñu liggéey c'est vrai que gouvernement bu bees ñëw na am na ay projet mais projet yooyu d'accord nañu ci mais dañu bëgg des signaux forts jàpp nañu ne en tout cas 2013 ñoom war nañu wane lu leer ci question yooyu question pouvoir d'achat bi mais question aussi si pro socle de protection sociale bi nga xam ne bii aussi ñu ngi koy agité. perspective yi daal mooy euh, waxtaan ci biir congrès bi ci question yooyu jël ci ay résolution bureau bi nga xam ne moom lañu ñu war a falaat incha allah ñu xamal ko ne ci 2013 nag nañu taxaw temm pour que nguur gi am ci ay jéego yu leer. groupe Futur Média ñoom dellu nañu lëkkaloo ak banque de l'habitat du Sénégal seen lëkkaloo googu nag njëriñu liggéeykat yi ci groupe bi la ndax kenn ku ci nekk ñu mën laa utal euh, kër moom mooy yitte yi seen lëkkaloo googu waxtaane nañu ko banque bi ne fas yéene naa jàppale groupe bi euh, ba liggéeykat yi kenn ku ci nekk ñu fexe ba nga mën a am dëkkuwaay Alpha Ousmane Ndiaye moom moo teewoon euh, ci ndaje mañ doon siife lii dëgëral diggante boobu bu mën a doon njëriñu liggéeykat yi ci groupe Futur Média ak Pape ngir gën a yokk taxawaayam ci jàppale ay liggéeykatam groupe bii du Futurs Médias xaatim ak lëkkaloo gu dox ci digganteem ak banque bi yore wàllu dëkkuwaay yi fii ci senegal ànd boobe nag doon njëriñu liggéeykat yi. Je suis convaincu aussi que vous avez une sensibilité sociale. Je suis sûr que s'il y a encore un effort possible. gëm naa ne yëg ngeen bu baax askan wi gëm naa itam ne su amee lu nu war a gën a yokk di ngeen ci taxawu. ngir jàppale sunu personnel bi li ñu fi def tey ab ndorteer la rekk sunu entreprise dafa ëmb ab journal ab rajo ak télé te léegi sax ñu taxawal site internet sunu groupe de press bi groupe de presse bu am gëdd lañu un groupe de presse qui banque bi nee na li ko yitteel mooy fexe ba bépp doomu réew jot ci dëkkuwaay. dana dooleel groupe yi di Futurs Médias ngir mu mën a jàppale ay ñoñam. La vocation la banque bi li ko tax a jóg mooy financer sénégalais yi ngir ñu am ay dëkkuwaay loolu mooy suñu taxawaay ci lu toll ci fanweeri at ak ñaar. lu tax ñu xaatim ay lëkkaloo ak këru liggéeyukaay bi dañu leen bëgg a dooleel ngir ñu wutal seen liggéeykat fu ñu dëkk loolu nag doon lu am solo ndax day wane ne entreprise bi bàyyi na xel ay liggéeykatam te jege na leen tamit. dans le politique sociale. ci wàllu yokkute taux d'intérêt bi nga xamante ne bii président de la république bi yëkkati woon na ko banque bi nag indi na ci ay saafara xamle na nag taux intérêt bi wàññeeku na bu baax a baax. tàggat yaram Diaw Cheikh Tidiane maa ngi jàpp di si ñu koy euh, tàmbale ak euh, wàllu tennis euh, Sénégal nag toog ci demi-finale yi par équipe ñi leen éliminé nag di Égypte ñaari doomu Sénégal yooyu di Salif Kandé ak Daouda Ndiaye nag ko seqaloon di ñaari doomu Égypte yi di Mohamed Sawat ak Sabri Chérif di daaneel 6-1 6-3 Euh, ci épure simple peut noonu la Sénégal ci demi-finale yooyu lépp e loolu nag di Salif Kanté nekk numéro Sénégal eh, météo bi loolu dañ koy teewlu ci micro Abdoul Aziz Ndiaye ak Martin. ngelaw bi dimbaliwuñu parce que ngelaw bi daa foroon trop eh, gëm naa ne temps bi su nekkoon comme démb dinañ am benn chance mais mënuñu ni. à cause de ngelaw bi moo ñu pet donc euh, xam naa dañu sonnoon xam naa dañu sonnoon euh, ñoo ngi enchaîné match depuis euh, depuis lundi. dañu def benn kan bu baax moo tax ñu qualifié ci kan moo tax ñu qualifié pour championnat par équipe yi gëm naa ne treize pays ñoo siy joué te quatre rek ñooy ñooy ñoo am chance de jouer match par équipe donc. ah parce que a fait que def nañ benn kan bu baax moo tax ñu ñu mun jouer donc ñoo ngi préparé suba am nañ du ñu jouer donc euh, dinañ reposer wu pare pour match par équipe yi samedi. waaw Sénégal dafay dem tey jii bokk ci compétition bi ñuy wax bi euh, tournoi beach volleyball bi nga xam ne tournoi boobu day tax nag nga dem championnat d'Afrique mais boo jógee championnat d'Afrique itam da mën a dem championnat du monde. Sénégal bi mu ngi am ñeent ndaw yoo xam ne ñoom ñooy participer ñaar ci góor ak ñaar ci jigéen. ñu ànd ak ki nga xam ne itam ñëpp xam nañu bis moom amul entraîneur am na kenn ko xam ne moo leen di tàggat rek mais su compétition amee mënul intervenir ci terrain bi loolu mooy règlement bi ci volleyball ànd incha allah bu subaa dina commencé mais am nañu yaakaar ni muy ci góor ak ci jigéen yëpp Sénégal incha allah dina qualifié parce que Sénégal itam bokk na ci équipe bi nga xam ni ñoom ñoo gën a baax ci zone bi ci wàllu beach volleyball ñi nga xam ni ñoom lañ fay xaw a sax xalaat di ñoom ñoo ñëpp doole mooy waa Cap Vert muy ci préparation muy ci participation fédération dafa dem ay moyens propres am la demee demul ak benn moyen état tey ji fédération sénégalaise volleyball ci compétition bi nga xam ne moo am zone 2 ñuy jégalu ci jafe-jafe yooyu ci wàllu xarala kon kooku ngeen seetaan léegi di Raoulatouf moom nekk ci fédération sénégalaise bu euh, volleyball doon àddu rek ci euh, ñaareelu championnat d'Afrique yi nga xamee ni ñu ngi ko ubbi ëllëg fële ca Praia ci wàllu beach volley te Sénégal yónnee fa ñaari équipe ci góor ak ci euh, jigéen. Euh, dañuy wax euh, leneen euh, lu aju ci rugby rugby nag fédération sénégalaise bu rugby nag fas yéene def kem kattanam rek ngir Sénégal am taxawaay bu baax ci wàllu compétition yi nga xam ne ña ngi koy amal ca bitim réew rawatina ci Afrique bi ci gën a jege sax di tournoi bi nga xam ne ni junior yi lañ koy jagleel nar a am fële ca Nigéria fédération sénégalaise de rugby nag ne du bàyyi dara ginnaaw rek ngir ñoo ñooñu mënu fa am ndam ci noonu dañ ci euh, teewlu Adama Bakhoum Adama Bakhoum ma nekk directeur technique national ci micro Abdoul Aziz Ndiaye. ñu ngi bokk ci groupe B et ñu ngi nekk ci euh, course buy dem ci euh, qualificatif coupe du monde en 2015. ñu war a jouer poule B boobu fii ci Dakar en tout cas waa confédération bi laaj. yaakaar nañ ni tamit def nañ demande pour autorités yi yaakaar nañu autorité yi ñu fi jàppale ndaxte compétition bu mel noonu fédération xalaatul organiser ko moom kenn donc il faut que ministère il faut que autorités yi nga xam ni télévision wax yooyu yëpp il faut que autorités jàpp ji pour que ñu mën ko organiser bu ñu mayee ñu organiser ko dinañ ñu jox chance Sénégal mu bu gagné dem dans le poul A donc bu demee dans le pool A moom mooy bokk na ci quatre équipes yi nga xam ne ñoom ñooy jouer éliminatoire coupe du monde bi. donc day daal di nekk compétition bu am solo pour que ñun ñu accepter ko jouer sur notre sol euh, accueillir équipe yi équipe yi ñu war a dajeel équipe yu mel ne Namibie la équipe euh, yu yu mel ni Tunisie la donc ñu xam nañ leen. kooku di Adama Bakhoum nekk directeur technique national bu rugby euh, Baye Ngagne li moo fi gënoon a xibaar ci wàllu tàggat yaram. jërëjëf euh, Cheikh Tidiane Diaw kon mbokk yi mu nekkoon xibaar yi tàggat euh, yaram yi aju woon ci xibaar yi marax yi ak télévision Futur Média dañ koy wéel waajal gan gi dikk Momar Dawla jiite Ascosen ponk waxtaan bi nag aju ci njëg yi nga xam ni dafay yokk muy ci ceeb bi di ci diwlin gi muy commerçant di client kenn ku ci nekk di joxar bi ñi di nguur gi ci lu jin njàkk ñoom la. Euh, Fatou Bintou Wane moo ci def reportage bi ànd ko ak Mar Dieng ay yokkute yu ñu nemmeeku si njëgu dëwliñ ak ceeb comme ni ñu ko jaaykat bi di xamale bu baax a baax dara yombul. litre dëwlin bi normalement 850 la jóge dem ba 1000 et quelque. ceeb bi mu ngi doon jar kilo 250 240 mais léegi mu ngi kilo 350 450 ba 500. ay ay problème lañ ciy jàkkoonte chaque mois wala chaque une semaine nga ñëw ñu ne yokku na aussi neexul quoi fii ci marché ci leen soxna si di wax jafe-jafe yi jigéen ñi nekkee pour mëtal ndékki añ ak reer. yokk dara wàññeeku wu ci yëpp a yokk dara wàññeeku ci ñett yi moom ndékki añ reer yëpp a yokk dara wàññeeku ci. dama daan boole doole ceeb ak doole génne 30 mille dellu 2500 mais bi 50 mille laa génne dellu ma 2500. Macky Sall war na cee wax de bu wàññi dund gi rek jubóo xale yi. beneen jaaykat bii di wax ni moom yokk bi daf koy dégg rek njëkk yi ñi ngi fi mu nekkoon ba tey. instant ah, eh, bi nag mi ngi prix bi mu nekkoon ba léegi temps yi passé doon nañ wax day yokk day yokk mais mujjewul yokk waaw ñu ko doon jaayee ba léegi loolu lañ koy jaayee litre bi 1200 ceeb bi ñoo ngi ko doon jaayee 450 ba léegi loolu lañ koy jaayee riz parfumé waaw moom la ñuy jaayee 450 bu dee ordinaire bi ñoo ngi koy jaayee 300 francs mu mel ni ñàkk déggoo bu ñu nemmeeku ci jaaykat yi ndax su ñuy nee yokk am na ñi ci des na njëg yi dara yokkuwul loolu tax na ba askan wii di ñaan ñu indil leen ay contrôleur ñuy nemmeeku prix yi ñuy jaayee waaye jëfandiku yi dellu di ñaan nguur gi wàññi prix yi ndax jafe-jafe la ñuy jànkoonteel saa su ne mbokk yi ci ponk boobu la ñu fas yéene waxtaanee mu wàju ci demande sociale bi jëm ci wàllu njëg yi euh, Momar ndaw lañ ci fas yéene waxtaanal moom mu jiitee way jëfandikukat yi féetewoo ci ASCOSEN monsieur ndaw ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay. waaw laaj bu njëkk bi rek mooy premier ministre ci jamono yële ñu génn waxoon na lu jëm ci prix ni dafay wàññeeku ba joxe woon sax ay ay ay prix yoo xam ni dégg nañ ko euh, ñu gis ni mbir moomu demeewul noonu gannaaw bi déggal nañu président de la république mu waxaat ci prix ba tey wàññeeku. amul lan moo lan moo waral lool lan moo tax prix yi ñoom kilifa yi di xam le ni wàññeeku am na ci te boo demee ci marché bi du nekk réalité. waaw euh, xam nga dafa am ñaari yëf d'abord li waral loolu mooy ne nguur gi fi mu jaar pour ne wàññi na njëg yi moo nekkul yoon wi nga xam ne fa la jaar war a jaar ndax bu fekkee nguur gi dafa bëgg a basé wu ci commerçant bu jël initiative bu wàññi. commerçant du wàññi lu may mu am lu ko poussé pour mu wàññi ndax moom gañe xaalis mooy tax mu jóg mais li gën a garaaw ci mbir mi mooy président Macky Sall conseil des ministres li ci xew wane na ne moom dañ ko nëbboon dëgg gi dañ ko wanoon ne wàññeeku na te wàññeekuwul parce que looloo tax mu génne ay chiffres agence nationale de la statistique et donc de la démographie yu firndeel ne wàññeeku amul njëg yi mu annoncé woon kenn respecté ko ndax fu ñuy wax ay deux cent quatre vingt jëm trois cent et quelque ci nga xamante ne lañu wax li prix moyen ci loo xam ne mu ngi waroon a wàcc euh, deux cent quatre ñu wane yeneen prix yoo xamante ni bii moo jëm ci effort yi mu def ci suukar si mun a def naa ci ay milliards te terewul njëg gi wàccul. milliards yi bu nee def bi fan nga ko gis ci subvention la wala ci. waaw ci subvention par exemple renoncement de taxe maanaam loo xam ne lu waroon dugg ci nguur gi la. Mhm. léegi nguur gi ne kon léegi man bàyyi naa ko dootuma ko jël pour que. Euh, li nga xamante ne bi moom mooy njëg gi mun a wàññeeku. mais loolu dafa garaaw trop maanaam juróom-ñaari weer yii nii ñi doon liggéey yëpp ay waxi ngelaw lañ doon liggéey réussiruñ dara. te waxuñ électoral la woon. te waxuñ dëgg président. Mhm. c'est ça le problème de fond parce que bu fekkoonte ne bi sax mun nañ wax ne président deful lii ñu ne xaj na moom sax yëg na ko mais dafa bokkoon ci ñi nga xam ne dañuy jéem a nax Sénégalais yi. mais gouvernement bi moo jéem a nax Sénégalais yi wax ne wàññi na te wàññiwul jox ay rapport président ne wàññi na te wàññiwul. président doo ko gis information indi problème kooku ñaari problème yi benn bi mooy bu fekkee da ngaa bëgg a wàññi njëg te am ñoo xam ne ñi ngi fi nekk mun laa jox ay xalaat ndax ñun <laughs> vraiment su gouvernement wàññee ñun dañuy réussir depuis bi nga xamee ne euh, mois d'avril gouvernement bu bees ñëw na ba léegi chaque jour ñu di leen jox ay ay éléments pour yu yuñ mun a wàññee njëg yi mm-hmm. mais bu fekkee ne gouvernement bi leneen moom mooy itteem. élément yooyu ban moo ci gën fës boo ñu mën premier élément bu gën simple rek. Mhm. mooy boo xoolee tey jii ceeb bi ñuy wax wàññi bi mais gouvernement naka la mun a négocier moom ak ay commerçant ñu waxtaan seen waxtaan ñu combinoo seen combine ñu génnee foofu wax ne yow détaillant bi prix sangam lañ la teg deux cent quatre te sart wax ne deux euh, commerçant bi nga xam ne mooy détaillant war na am sept cent cinquante francs ci saaku ceeb bu nekk muy quinze francs par kilo. kon moom pour mu jaayee deux cent quatre vingt il faut que mu jëndee treize mille deux mais yow nga ne commerçant bu mag bi nga xam ne moo diggu doo mook bu mag a mag beeg yooyu yëpp ñoom prix bu leen neex la ñuy jaayee te buñ jaayee ki nga xam ne mooy détaillant bi lu ëpp treize mille deux cent cinquante détaillant bi du ko mun a jaayee deux cent quatre vingt yi gouvernement santaane. Mhm. te ñoom xam nañ loolu. Mhm. réunion nañ ministère du commerce moo wax leen ko. ñu ne non dañ bëgg mu am wujjee ci diggante demi yi pour que prix yi gën a wàcc mais ki nga xam ne moom mooy détaillant client captif la ci demi bi parce que demi bi moo koy lebal donc su ko demi grossiste bi jaayee prix bu xaw a gën a élevé da koy rek waaye du fa bàyyi dem ci keneen waaw biir wax léegi da nga ma wax euh, combine ci diggante état bi ak euh, yenn ci commerçant yi ndax kon da nga jàpp ni prix yu wàññeeku mënul génne foofu mais bu fekkee ne combine dafa am lan tuddee combine sax combine bi mooy diggante ñaari tour yi commerçant yi dañoo yokk prix yi d'une manière anormal te teguñ ko ci dara biñ ko yokkee ba nga xamante ne bi ëpp na dayoo ñu ñëw gis laay Wade. gis Macky Sall produit bi moo raaroon moment boobu produit yi. non non non dara changé wuloon ah, li ci nekkoon mooy xam nañ ne gouvernement bi comme ay manifestation bari na. élection mhm. jubli si na jafe-jafe am na gouvernement bi tàlluñ leen woon. ok gouvernement bi sax joxe woon na ay prix mais mënu ko woon a faire appliquer parce que oto yi gars yi doon utiliser waroon na utiliser contrôle économique yi mhm. pour dem ci terrain bi sax dañ ko doon abal gendarme yi ndax boobu manifestation yi dafa bari mhm. ñoom ñu yokk prix te teguñ ko ci dara mhm. biñ ko yokkee ñëw seeti camp Ablaye Wade seeti camp yi Macky Sall ne leen ñun mun nañ leen jàppale ku ci gagné mun nañ la jàppale pour wàññi njëgi kon nga xam foofu yow loo xam ne mu ngi doon jar quatorze mille cinq cent par exemple riz parfumé ordinaire quatorze mille cinq cent quatorze mille sept cent cinquante la doon jar prix xam ne moom la gouvernement sénégalais joxoon di trois cent quinze francs yow nga jël ko yóbbu ko ba ay vingt et quelques mille francs cinq mille sax am na ñu ko doon jaay. bien sûr. riz parfumé bi nga xam ne moom la ñuy wax parfumé de luxe bi maanaam bi nga xam ne état du Sénégal kiiwu ko euh, fixé wu ko daf ko bàyyi mu libre doon nañ ko jaay ba ay vingt neuf mille francs léegi ñoo ñu dellu siwaat un mois après rek ne la non mun nañ ko wàññi vingt mille te lu doon jar quatorze mille cinq cent quatorze mille sept cent cinquante kon kay yokk nañ ko six mille francs mhm. yokk nañ ko te bañ réunion ñun ci diggante deux tours yi bañ waa Macky Sall yi ñu ne ñu ñoom dañuy présenter seen programme ne dañoo bëgg wàññi njëg yi nee nañ leen ñaata ngeen di wàññi ñu ne dañ bëgg a jëlee ceeb bi vingt cinq mille indi ko vingt mille ñu ne leen déet vingt mille yokk la vingt mille du wàññi parce que prix bi quatorze mille sept cent cinquante la woon soo ko waxee na da koy wàññi vingt mille yaa ngi yokk diwlin bi ñu ne ñoom dinañ ko jëlee mille deux cent yóbbu ko mille franc ñu ne leen déet diwlin bi mille franc lay jar soo ko bëggee yóbbu. Euh, soo ko bëggee wàññi ko bëggee wàññi day nekk moins de mille franc day nekk moins de mille franc mais boo defee mhm. mille franc lay jar. ñu ne non ñoom dañoo calculer niinal bi mbuus mi trois cent lay jar ñeenti mbuus yi mille deux cent ma ne leen déet mbuusu niinal bi prix bi da cee bokk ci prix niinal bi prix diwlin ji la ak mbuus mi. Mhm. kuy jënd diwlin di natt. Mhm. prix officiel bi neuf cent la Euh, mille francs la ci lañ doogee ñoom wax mbiru 960. mais mbiru cuune bi li ma woon mooy premier ministre nee na prix bi 1200 la woon wàññi nañ ko 960 donc xam nga la ñuy réunion woon ak ñoom lañ ñu waxoon ak ñoom ci entre deux tours yi. Mhm. lañ continuer di wax. ba tey te loolu xamoon nañ waxoon nañ leen ne leen lii ngeen wax. tegu leen ko ci dara. voilà kon mhm. mënuma comprendre daal. Mhm. dafa mel ni daal liggéey sabotage la. parce que bu fekkee da liggéey ak ay nit ñoo xamante ni ñu ngi ci terrain bi depuis plusieurs années di la jox ay ay ay cax yu ndaw yoo xam boo ko defee njeg yi wàññeeku donc war a appliquer au lieu que ngay topp ay intérêt commerçant voilà parce que dañoo topp intérêt commerçant toppuñu intérêt askan bi jërëjëf euh, Momar Ndao bu Ascosen euh, kon mbokk yi mu nekkoon suñu gan ci jeexitalu xibaar yi marax yi la woon ci kalamay wolof euh, dina ci dikk ci gën ko yaatal ci kalamay tubaab incha allah ak Mamadou Ibra Kane lay doon ci présentation bi mbokk yi ñu leen jox daje bu ci yàlla àndee ëllëg jërë jëf.